bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi alladi ahyaana bacdama amaatana wa ilayhi nushur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 ak suñuy mbokk yu ñuy topp ci waxtaanu fajar ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu sant yàlla buur ñu may ñu fanaan ci jàmm ñoo ngi koy ñaan tabaraka wa taala yal nañu yàlla may këndalug jàmm yal nañu yàlla jàmmal yal na yàlla jàmmal musal suñu réew ak mboolem réew yi ko wër mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi mashariqil ardi wa magharibiha fépp nekk ngay wéttalantek ñun ci waxtaanu fajar bi ci waxtu bi ñu ngi lay ñaanal yàlla yow it yal na nga ñu ñaanal yàlla yow it nga bañ ñoo fàtte si ñaan yal ñu yàlla boole nangul di leen fàttali ne bi léegi rek waxu boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullah mo mi yëbbante doomu aadama bi rawatina jullit bi ba tax na mu ne ibnu aadam yow doomu aadama bi innama anta ayyaamun xamal ne bési ya ngay dund de mooy ya am ci sa xamal ne bés ya ngay dund mooy bés ya nga am ci sa dund na danga nga war a bàyyi xel lama kullama zahaba yowmun bés ba xasa ñëw ba jaar jal zahaba baaduk am na lu dañ ci yow am na lu dem ci sa dund ba ba tax na da nga war xel la nga xamante ne moom la sa boroom santaane waaye sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal la ko kon nanga tënk sa bopp ci noonu ba tax na jamono yii ñu toll ni képp ku yàlla delloo sa ruux ba dundaat war ngaa sant yàlla ci ñaan ba yonent bi baaxee xeet bi sallallahu alayhi wasallam képp ku yàlla baaxe bam la delloo so ruux yonent bi neena ñaan bi moo la war nga daldi wax alhamdulillahi alladi cant ñeel na boroom bi nga xamante ne axyaana moo ma delloo ruux ba ma dund baadama amatana gannaaw bu mu dogalee ci man nelaw wa ilayhi nushur waaye dellukaay ba màgg ba dellukaay dëggantaan ba du ci kenn du ci fenn fudut fa borom bi ci moom dong lañuy ñuy dellu jamono bu ñu tàqale ko ak dund bi yenn yiix mbokk yi yenn jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot démb ñu ngi taxawoon ak yenn ngi neel ba nekk ci julli waaye ngëneel ba nekk ci la nga xamante ne mooy dem jàkk waaye ngëneel ba nekk ci la nga xamante ne mooy julli ñaari waxtu yu yamambaay te yonent bi tuddee ko albardaani ñaari waxtu yu sedd di waxtu yi fajar bañ doon julli ci kanam tuuti rekk wala ci ginnaaw tuuti ñun daan ñu ngi ni daan julli waxtuy fajar ci kanam tuuti bi iznillahi mawla jalla wa dinañu julli takkusaan kon yonent bi sallallahu alayhi wa ci waxtaan bu mujj wax nañ leen ne yonent bi nee képp ku sax di julli ñaari waxtu yu yi ñaari waxtu yu yi bu la ci dee fekkee boo dajeeg sa borom dina la gërëm ba tàbbil la kër xéewal bi ñu naan arjan ba tax na tey ñu bëgg a jokk buntu boobu beneen buntu bu bees ba léegi mu nekk bunt bi nga xamante ne mooy bunt ba ñu war a jokk ci waxtaanu démb yéena ngi fekk wala yéena ngi dégg ne yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa baaxe ñi nga xamante ne dañuy xuus ci guddi di làmbatu ci guddi ngir am jéego bu ñuy séq di jëm ci jullikaay ba laleen yenentu bi ne ñooñu yàlla suñu boroom da leen di baranchel projecteur bu mat sëkk mooy leer bu mat leer boobu fa muy jógee ki ko bëgg a xam nang ñu topp ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi fii jaar moo ne bu ñu demee xool ca suratu tahrim dinañu fekk borom bi tabaraka wa taala muy baaxe yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci juróom ñeent ji neuvième aaya gannaaw bum ko joxe mu jox ko bind bu toll ni ne ko yaa amanu tuubu ilallahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'aatikum wa yudxilukum jannatin tajri min taxtiha al anhaaru yawma laa yuxzi llahu annabiya walladina aamanuu maahu nuuruhum yas'aa bayna aydihim wa bi aymaanihim yaquuluuna rabbana atmim nuurana wagfir lana innaka ala kulli cheyin qadir mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot waaye lañu war a mën a tibbee ci aaya bi mooy la suñu tem ba ñuy waxtaane nii gannaaw bu yàlla suñu borom tabaraka wa woote woote bu mag boobu jëmale ko ci woy gom yàlla ñi yàlla xallil leen yoon ubbil leen buntu tuub ak lu ci aju bi kerook bés mu nar leen tàbbil arjann arjana soo xamante ne borom bi nee na ay sewnde ñooy daw ci suufu etaas ya nekk ci arjana waaye suñu borom tabaraka wa taala garantil yonentu bi ak képp ku gëm yàlla gëm yonentu topp yonentu bi ci ay ndigle yamu digle yàlla buur bi tabaraka wa yowmal qiyaama da di bés bi nga xamante ne yowma laa yuxzi llaahu nnabiya walladina aamanu maah bés penc da di bés bi nga xamante ne boroom bi du gàccel du ruslu du toroxal yonenteem bi ak mboolem ñu ko topp nuuruhum yas'a bayna aydihim seeni leer dañuy àndandoor ak seeni leer leeraayu islaam ba ñu doon dundu dañuy àndandoor ak leeraay boobu leeraayu njàpp ba ñuy jàpp ci jamonoy seddaay dañuy àndandoor ak leeraay boobu waaye leeraayu lëndëm ba xuus ci guddi ci lëndëm ngir dem jooxe ji waxtu faratay yàlla leeraay boobu day àndandoor ak ñoom kon nga déggee ci aaya bi ne bés pénc képp ku saxoo di jàpp ci seddaay bés foofu nga doon raxas jamono ya ngay jàpp borom bi da koy leeral mu doon projecteur bi nga xamante ne kem fa ngay dox noolu la niital foofu la lay niital moo tax mu ne bés penc de da di bés bi nga xamante ne yowma laa yuxzi llahu nnabiya walladina aamanu maahum bés penc da di bés bi nga xamante ne yàlla du gàccel yàlla du rusloo du toroxal yonentam bi ak mboolem ñi ko gëm te topp ko nuuruhum yasaa bayna aydihim yàlla moo leen di barancel projecteur leeraay bu toll ni dañuy ànd ak seen leeraay boobu su ko defee mu doon gëm yàlla bu nga xamante ni moom lañ fas seeni xol day doon leer projecteur bu leen di niital su ko defee ñu xam fa ñuy dox ndax bés penc amul projecteur te amul lumière amul jant yàlla suñu borom tabaraka wa ne leeraay boobu day doon la leen di accompagner su ko defee mu ñu doon ñu am kóolute ñu am sécurité ci leeraay boobu ba tax na dañuy continuer di ñaan yàlla di ko ne ñuy wax ne rabbana yow suñu boroom rabbana yow suñu boroom mi ñu bind te moom ñu yow mi ñu santoon say ndigle ci àddina ñu nekk ci si suñu kéemtalaay kattan donte mënuñu ko mënuñu ko matale rabbana yow suñu boroom yow mi ñu dig ne képp ku topp say ndigle képp ku topp jéego ba sa yonentu bi teg rabbana yow suñu borom boobu donte mënuñoo matale say digle waaye kem suñ kemtalay kattan yan ci def yow buur bi ñu sant loolu rabbana yow mi di suñu borom ñu ngi lay ñaan atmim lana ngel la waay nangu matal nuurana leeraay bi ñu baranseel nii mu bañ a dàkk mu bañ a coupé ndax mbokk yi ñun lu ñu xam ci dund àddina si fi jant bay fenk ci suba ñu nekk ak moom mu doon suñu mbokk ñu doon mbokkam ba keroog ñu naan jaa jëf waaw góor jant bi sonn ñu daal di dugg ci lëndëm loolu lañu tàmm bu ñu gënn see àddina bi léegi moom la ñuy gis te moom la ñuy dund jant bay fenk mu dem ba toll foo xamante ne daan ñu naan guddi jot na ana jant bi dem na yoonam ñun loolu lañu xam dañoo gane si àddina fekk ku fi muy liggéey liggéey bu mag boobu yàlla sant ko kon bés pénc bu ñu demee ba gisuñu bopp ci lëndëm bu crise lëndëm bu tar borom bi daal di ñu branchel lumière projecteur ba nga xamante ne yonent bi nee ku dund di dox ci lëndëm di dem joxe waxtu yi farata yàlla buur bi tabaraka wa taala dalay branchel leer bu mat sëkk keroog bés pénc kon leer boobu noonu yàlla branchel la bés pénc du bokk ak leeraay ba nga xam fii ci àddina nga xamante ne léeg-léeg mu coupé xataa suñu projecteuru àddina dangay ngay jékki-jékki gis ne ñu ne courant bi coupé na ñu loolu lañu xam loolu lañu taam ba tax na ña yàlla di baranseel leeraay bu mat sëkk keroog bés pënc ñoom kóolute ba ñu am ne yàllaa leen baranseel li ànd ak loolu dañ koy gën a ñaan ñu ne ko haa rabbana suñu boroom moo tax aaya bi dañu naan rabbana suñu boroom doomu aadama yi dañoo ñaan yàlla ci tawxiidu rububiya moom ba ñu moom moomeel ba yàlla moom jaamam yi ci turam boobu lañ ko ñaan dañ ko ne rabbana suñu borom yow mi ñu moom te nga am sañ-sañ ci ñun lu la neex defal lu la neex yaa am sañ-sañ su ñun te kenn du la laaj lu tax rabbana suñu borom boobu ñu lay ñaan atmim lana yàlla nga ñu matalal matalal ñu ba mat sëg nuurana leeraay ba ñu may ba ñuy gis ci lëndemu bés pénc duñu yem ci loolu de ba léegi dañuy continuer di ñaan ñu ne ko waxfir lana te nga ñu suñu matadi ya ñu nekkoon ci àddina ngir bañam matale ngir lot loof lompoñ bañu baña matale lan ñu sant ndax keroog bés penc mbokk yi buur bi tabaaraka wa taala ci yërmandem ak ci mbaaxam ci doomu aadama bi tënk boppam ca lam la sant nga di ko defee comme na ko yonentu bi santaane sallallahu alayhi wa sallam dalay fay bi wis ba am gàcc ci sa ni ne li ma yàlla fay nii médité wu ko ndax defalu ma lu tax mu di ma fay lii kon xaaral ñaan ko ba léegi ndax da buur bi nga xamante ne daa bëgg jaamam bi di ko ñaan saasu ne ba tax na ca ngay déggee ne jaam bi naan ko ne waghfir lana ñu ngi ñaan ba léegi yàlla nga ñu jéggal ndax dayoo màggaay ya aaya bi jeexee yàlla dong moo ko yeyoo te moo ko nekk te moom dong nga ko war a wax moo tax aaya bi jeexee keroog way gëm yàlla ñooñu buñ ko ñaanee ñu naan ko wa yaquluuna rabbana ñu naan suñu borom atimim lana nuurana yàlla nga ñu matalal suñu leeraay ba ñu wërsëgal tey bés pénc waaye bu ci yem wax fir lana yàlla nga ñu jéggal ndax innaka yow yàlla tiggi rek kot don rek ah ala kulli shay'in ci bépp mbir ci bépp anam ah qadir ku ci am kattan jumat sëkk nga allahu akbar moo tax fii doo ko ñaan yonent la nga ne nii la nga nekkee nii la nga bëgg doo ko ñaan waliw doo ko ñaan yonent doo ko ñaan malaaka yàlla dongo nga koy ñaan moo tax nga dégg aya bi ne wa yaquluuna ña yàlla branchel projecteur boobu wala leeraay boobu ñuy wax ne suñu boroom rabbana yàlla yow ñu moom atimim la naa ñu ngi lay ñaan lënd may bés penc bu ñu nekk nii lëndëm bu tar bu ñu nekk nii ñawet di yàlla ñu ngi tëñëx tëñëxi di yuuxu ndax toskare ñeel na leen waaye ñun mi ànd ak bi te gëm la gëm sa yonent bi ñu ngi lay ñaan atmim la naa nuuranaa yàlla nga ñu mattalal suñu leeraay baŋ nga ñu wërsëgal nii waaye bu ci yem de waxfir lana yàlla nga ñu jéggal suñu rëcc rëcc ñàkk matale jaamu yàlla yang ñu sant ci àddina ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu ko jéggal par rapport ak lang ñu fay par ak xéewal yang ñu wërsëgal fii ci àllaaxira ey yàlla yàlla nga ñu jéggal suñuy bàkkaar ndax innaka naka yow yàlla de ala kulli shay'in ci bépp mbir ci bépp anam xadiir ku ci am kattan bu mat sëkk nga yaa am kattan du kenn du laam-laame yaa am kattan bu kenn du sikk ci bépp mbir ba doomu aadama bi nekk yaa am kattan ci bépp mbir ba nga dogal ci doomu aadama bi waaye yaa am kattan ci bépp mbir boo xamante ne namm nga ko ci sa jaam bi kon buñ na la ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne na ña nga xamante ne dañuy xuus di dox di dem ci jàkk ji loo leen di bégal mooy leer bu mat sëkk keroog bés kon aaya bi da koy daal di déggal bi ci xadis abi hurayrata radiallahu anhu dane an anasin bun malik radiallahu anas bun malik yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bashir fi dulumi bi nuuri tamma yowma alqiyaamati da nga bégal gaa yoo xamante ne dañuy làmbatu di xuus di dox ci lëndëm ci guddi ngir dem jàkka ja nanga leen leeraay bu mat sëkk keroog bés kon aaya bi bu ñëwee feddali wax jooju dañu naan sadaqa rasul suñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam ñu wax mooy la nekk ndax moom mi yàlla yenkeewal xam-xam bi bem ko xam wax ñu ko moo tax yàlla ne ko yawma laa yuxzi llaahu nabiyya walladina maahu bés penc da di bés bi nga xamante ni yàlla du toroxal du gàccel yonenteem ba ñu wax xadis ba jàll ak képp ku ko gëm ñu nekk ak moom nuurahum seeni leeraay yàlla dalañ koy barangel yàlla dalañ di poose may leen wërsëgal leen leeraay bu mat sëkk yasa bayna aydihim leeraay boobu ñu di ko doxantoo keroog bis penc bu lëndëm bi nga xamante ne amul projecteur amul jant amul dara luy may nit éclairage lu dul ka yàlla wërsëgal nga am leeraay moo tax loolu bu amee ñu nekk ci kóolute bu toll ni waaye kóolute boobu ñu nekk lépp dañ naan wa yaquluuna ñuy wax ne rabbana suñu borom yow mi ñu moom atmim lana nuurana yàlla nga ñu matalal yàlla lumière boo ñu barangel nii bu mu coupé ndax doomu aadama dafa tàmm lumière bay ñëw di dem ak ñëw comme nuñ ko misaalee woon ci ginnaaw jant bi day jékki-jékki fenk ñu nekk ak moom mu doon mbokk bu ñu jege ñu doon mbokk ju ko jege waaye jékki-jékki lëndëm daal di nuyoo ñun loolu la ñu tàmm ndax ba ñu gën see àddina ak tey ji loolu la ñu xam te loolu lañu miin kon ñu defee ne bés penc noonu lay demee déedéet bés du demee noonu de yàlla bu ñu barangel bu ñu yàlla mayee éclairage bu toll ni éclairage boobu du kuppe du dagg du bokk ñun lu ñu tàmm ci dundu àddina moo tax ñu ne rabbana suñu borom atmim lana yàlla nga ñu mottalal yàlla ñu may mu mat sëg nuurana leeraay bi ñu wërsëgal yàlla ko bàyyi fekk ñun ba keroog ngay atte jaami yàlla nga doon ki ñuy bàyyeeg suñu leeraay ba ñu may waaye du ñu foofu de wax fir lana ñuy ñaan yàlla jéggal ñu ne ko yàlla nga ñu jéggal yàlla nga ñu suturaal suñu rëccu rëccu ya ñu nekkee woon ci àddina ngir ñàkk matale santaane ba ñu sant mu wuute ak lang ñu fay santaane ba ñu sant ngir ñu jaamu la ko defuñu ko kom noo ko bëggee noone nañu toppee sa yonent bi lottu nañ ci lool kon échec bi ci ñun la par rapport ak lu ñu fay tey bés pénc bésu tiitaange nga sutural ñu mais ñu éclairage bu toll ni ñeneen ñu dut ñun ñooñu ñu ngi ci lëndëm bu kiris ñu doon jaamu leneen lu dul yow ñooñu ñu ngi ci toroxtaange ñu ngi ci torskare waaye ñun mi nga may sens ñu di la jaamu àndandoor topp ndigle sa yonent bi donte mataluñu ko mais xoolal loo ñu fay waaye yàlla lumière bi ñu nekkee nii éclairage boo ñu wërsëgal nii waaye yàlla bu mu dagg waaye yal na nga ñu ko matalal ba keroog ñuy tàbbi àjjan ñu daldi wax ne waxfir lanaa yàlla nga ñu jéggal yàlla nga ñu suturaal ndax yow yàlla innaka yow rekk kot ala kulli shay'in ci bépp mbir ci bépp anam qadir ku ci am kàttan nga ku ci man dara nga waaw keneen ku dul ci yow duñu wax lii kenn bak taggaate bi ñaan bi kenn du ko ñaan malaaka kenn du ko ñaan yonent kenn du ko ñaan waliw lii yàlla dong rek moo ko jagoo ndax moo ko yore keroog bés moom lañ koy ñaan mbokk yi la aaya bi di tekki yal nañu ko yàlla wërsëgal la aaya bi di tekki yal nañu ko yàlla manloo yal nañu yàlla kattanal ñu di ko jaamu mu méngoog na ko yonentu bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ñu ñan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yal nañu yàlla may dégg ak topp lu jub kàddu gi ñu sante ko yàlla lu ci dëng ñu ngi koy jéggalu di jéggalu ñëpp yàlla ñu yàlla boole jéggal waxtaan bi jeexul dañu war a jébbal béréb bi ñu war a jottali xibaar ñu di leen ñaanal yàlla yàlla ñu yàlla boole defal yiw allahumma aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulata umurina allahumma ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baarakallahu lii walakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa dikri alhakim aqulu ma tasma'un wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu